al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam alhamdulilahi rabbil alamin التي أمر العباد بالتوبة وأعد لهم مغفرة وأجرا عظيما ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد معاشر المسلمين تعالوا إلى توبة النصوح والإقبال إلى الله تبارك وتعالى مع الإخلاص في العمل كما قال الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه فتوبة هي الإنابة دون الكبائر ولا صغائر خالصة لوجه الله تعالى الكريم ألا تعود إلى أي ذنب من الذنوب لا سيما في هذا الزهر الكريم رمضان المبارك سحر الخير والبركة wa nahnu fi ayaamiha li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam awaluhu rahma wa wasatuhu maghfira wa axiruhu atqun min annaar aw kama qaala falabdu yanaalu fi tawba martabatan aaliya yanaalu fi tawba martabatan aaliya baynahu wa bayna mawlaah subhaanahu wa taala ibaadallah saaricu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samaawaatu wal ard uiddat lilmuttaqiin جعلنا الله وإياكم مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الحمد لله نعبده إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ما دامت السماوات والأرض أيها الإخوة المؤمنون اعلموا أن التوبة مرحلة عالية يرحلها عباد الله سالمون إلى أعلى درجات في الجنة فبادروا إليها قبل فوات الأوان لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وما للعباد في التوبة إلا بها ساروا في محبة الله تعالى ومحبته لا تنال إلا بها وفي ذلك يقول ابن الخيم رحمه الله إذا كنت تدعو وداخ عليك الوقت وتساعمت في قلبك حوائجك فاجعل كل دعائك أن يحفو الله عنك فإن عفا عنك أتتك حوائجك من دون مسألة جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا وأقول قولي هذا ثم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات آمين asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk julli yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen balu di leen balak di leen ndokkeel ci guddi gu màgg gi ñu bàyyi ko di ñaan yàlla bépp xeetu jaamu buñ ci def wala ñaan rek yàlla na ko yàlla nangul dañ bokkuwaat fekkee ko ñun ñëpp ay at yu bëree bëri ñu bokkuwaat ñun ñëpp sant yàlla ndax yàlla li tax ñu war ko sant fu ñu toll lim mu defal sax ci xéewal bari na lool waaye nag fekke rek fekke rek maanaam jar na dong ñu sant ko ci fekke rek tax fekke su fekkoon ne lu muy fayu la par par weer wu ne ñu fay ba jeexal te duñ mën a am ak kon war nañ koy sant fu ñu toll dina bu ñu sante yàlla julli ci ab yonenteem sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne ñoom ci fukki fan yi ci digg bi te fukki fan yi bi dafa am loo xam ne ci làmmiñu ab yonenteem sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu ci yàlla dik mooy njéggalu yàlla moo tax tey woote yi nga xam ne moom la indi ci loolu la jëm suñu borom tabaraka wa taala woo nañu ci téeréem nenu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen mëtte gëm di dëggu ci yéen na ngeen daal di gaaw tuub jëm ci yàlla tuub bu sell tuub bu sell nag ci wolof su fekkoon ne bëgg nañ koo dégg dëgg mooy loo xam ne defoon nga ko ba noppi rëccu ko te koo defaat loolu mooy tuub bu sell saa yoo xam ne loolu daje na ci bàkkaar bàkkaar ba mu rëy ak mu tuut ñoo yam jàppal ne suñu borom dala koy jéggal nee na nag su fekkee ne yéen ñëpp maase ngeen ci def ko danaa leen jéggal seen i bàkkaar seen i ñaawteef dinaa leen ko baal boo ëllëgee dinaa leen tàbbalaal jànna ji nga xam ne ma ngay daw ca rawam ca ca suufam ay yolle te nee bis ba ma leen koy defal da ngeen ko soxla ndax bis la boo xam ne nee na bu ñëwee sama yonent ak samay ñi toppoon sama yoon bi du ma leen toroxal mukk kon ñun ñëpp nañ maase gaaw tuub dellu ci yàlla ndax fukki fan yu yi nga xam ne moo ne ci digg bi yonte bi alayhi salaatu wasalaam dafa fan yu njëkk yi yërmande yàlla la yi ci digg bi njëggalu yàlla la waaye yi nga xam ne mooy mujj nag mooy deñ ba set wecc wecc ci kon nag ginnaaw léegi ñu ngi ci fukki yi ci digg bi nañ ngaa profité daal di tuub suñuy bakkaar ak suñuy rëcc rëcc ak suñu njuum te suñ ko defee suñu borom mën na noo jéggal nee na tuub nag baat bi dëgg-dëgg ak taw ba nee na li muy tekki mooy dellu ci yàlla waaye booy dellu ci moom nag bàkkaar bu mag ak bu ndaw la ñemale yépp na ko faxas ba mu set jëm yàlla dellu ci moom te nee na benn bàkkaar nee na nag am nga sens ci weer wii nga xam ne ci lañu yàlla sant ñu ñu tuub ci ci weer yépp lañu ko sant waaye nee na sens bi nag mooy ginnaaw tolloo nañoo fukki fan ci digg bi nee na loolu sant bu rëy la pour ñun ndax weeru weeru koor moom fanam yépp moo am jàmm ci ñaan ak ci tuub ak ci saraxeek ci def lu baax ak yëpp fanam yëpp loo ci def te yàlla tax rek suñu borom nangu moo tax mu ne ginnaaw ñoon ci ay fanam nag te nekkee ko ci biir weeru koor nee na ñun ñëpp war nañoo maase tuub dellu ci yàlla suñu borom nag nee na ab jaam nee na tuub ci boppam dana ci am martaba bu kawee kawe boo xam ne ci digganteem ak boromam yàlla rek mooy xam martaba ndax ci nee na kaw waaye foo ko takk rek weesu na ndax ab jaam saa yuy tuub li ñuy wax delloo njukkal da koo delloo boromam ndax li tax dafa delloo boromam jukkal mooy saa yoo tuubee rot ci kanam sa borom wan nga ko ne yow yaay buur keneen du buur wan nga ko ne it yow dong lay tuubal ci ma tuubal keneen moo tax yàlla bëgg bëgg ci jàmm ni ko tuubal mu toll dig nañu it ëllëg ci alxuraan nee na ak njëggal goo xam ne ci seen borom lay bàyyi ko dig nañu nee na ay aljana yoo xam ne bi nuy misaal yaatuwaayu aljana ya ne yaatoo na ni suuf ak asamaan suuf ak asamaan nag toujours damay wax ne man ci gis rek ci saa yi mën a gis gisaguma lu ko gën a yaatu xam naa su amee it man xaw ma ko kon nag ginnaaw dig nañu ci loolu asamaan yoo xam ne moo gën a yaatu maanaam aljana yoo xam ne moo gën a yaatu asamaan ak suuf yi waxuma la ñun ñu ngi koy dig waaye yaakaar naa buñ sax suñuy mbokk ak suñuy xarit ak suñu am di jaan yëpp daañu fekk biir ndax ñun ñii ne àdduna ñëpp suñu suñu asamaan ak suuf mu ne kon nag li war ab jaam mooy mu tuub mais buñ ko defee suñu borom mën nañoo tawféexal ëllëg ñu ànd ak ñi nga xam ne dañ ko ragal ba noppi saxoon ci di def lu baax ndax ñoom biñ ko ragalee ba noppi dañ doon saxoo di tuub saxoo di rafetal ci seen i jëf ak seen i wax nee na nag buñ ñun itam buñ góorgóorloo def lii mun wax bu ëllëgee nee dañ ànd ak ñooñu mu ne tuubi ngeen xam ne waruwaay la woo xam ne ñu baadullahi saalihiina yi ngeen doon jéggi da gisul leen leen di nga xam ne ña nga tey ca du béen waruwaay woowu biñ nekkee àdduna moom lañ waroon wàcc ñu ko wàcc ñu ko ba mu wàcce leen aljanna nee ñuy dund nañu fexe war a waay woowu fuñ toll ñu koy war ndax doomu aadama toujours damay wax ne rek dafa manqué manqué na ci lépp doomu aadama boo ko seetee biiram ak bitim lépp da cee manqué nag lépp da cee fu mu toll rek nay buur jëm ci boroomam te jëmee fa tuub tuub bu sell tuub nag dañu wax ne mu ngi mel ne rek nga yor sa ndab ñu bëgg la caa defal ñam woo bëgg jëfandikoo wala dox mais bala ñu ko caa def da koy raxas ba set wecc jëm it ci digganteem ak boroomam dafa mel ni ndab la lépp ndax lu set rek faaw ñu def ca dara waaye su fekkee ne setul rek suñu borom moom day téye ay yëfam ndax ku am fula la ci boppam. dafa am benn xakim bu mas a nettali ne nit ku ne war ngaa sàmm sa bopp sàmm say jëf ndax nee na nit ku ne ndap nga boo fexee ba sa ndap bënn nag bépp ñam buñ la ca defalati day tuuru buñ ca defee ndox mu tuuru bënn ji nag mooy maanaa nga bañ a sàmm sa bopp bañ a sàmm say jëf bañ a tuub. soo ko defee jàppal na yorutoo ndab wala boo yoree ndabit ndab lu bënn nga yor te ndab lu bënn soo ci defee ñam tuuru boo ci defee ndox mu tuuru kon sàmm suñu bopp sàmm suñu cër fexe suñu ndab yi nga xam ne ci la ñu yàlla defal aw yiw bu ko ci defalee ñu mën ko denc ba bisul jariñoo ba ñu jariñoo nee na kon war nañoo gaaw balaa jamono faat ndax jamono moom day dem ba tollu jamono xam yoo xam ne day faat ndax tuub dañoo xam ne nit ki suy dund ànd ak xelam ànd ak sagoom dara météo ko buñ ci tuub yëpp guddeeg bëccëg subaa ngoon dañ ko koy ubbi jàkkaarloo moom naan ko tuubal soo tuubee ñu jégal waaye nag su ko defut ndax ak càggante wala topp bànneexu bakkanam wala seytaane ba xas àgg ci mititu ndee bunt yëpp dañ leen di tëj bu boobaa tuub du am njëriñ moo tax ginnaaw ñun egguñ foofa te yàlla na yeex nag kon nañuy farlu ci tuub bu baax a baax rot na ci alxuraan mu ne itam su ngeen maasee tuub jëm ci yàlla yéen ñëpp nee na ëllëg dana leen jural ak texe nee na jaamu yàlla yi day nee na tuub ne liñ ciy am ëllëg mooy cofeelu yàlla te cofeelu yàlla ku ko am am nga saadata daarayni am nga texe ak adduna ak alaxira ndax moo wax ci alquran ne inna allaha yuhibbu tawaabiin wa yuhibbul mutatahhirin nee na ñi nga xam ne dañuy tuub jëm si ci man sopp naa leen man yàlla te bi ma leen soppee li tax ma sopp leen laab gi ñu laab te laab gi rek moo leen ko may kon mbokk yi nañ farlu bu baax a baax am na benn borom xam-xam buy wax ab eh, ibnul xayim nee na nee na li yàlla defal jaam bi ne su ko ne day mujj bàyyi lépp sax ci tuub ndax nee na nit dana dem sax ba yittee adduna ak i soxlaam jàpp ko ba perturbé ko ba du xam lu muy def wala lu muy wax ndax njàqare yi adduna waaye nee na soo saxee ci tuub nee na da ngay dem ba mu yëg ne mboolem njàqare yooyu newoon ci yow nee na dañ na nee mën naa jëriñ loolu rek ci saa nee na kon sax jar na ci jaam bi sa xeeti jaam yi ngay def ak xeeti ñaan yëpp nee na nga jooyal ko ci tuub ndax nee na jant boo ko defee ba yàlla nangu la dana la sippil say bakkaar baal la say njuumte baal la say rëcc te nee na aajo yi nga amoon yëpp dana la ko fajal te loolu sax alquran am na lu mu ci lu mu ci masal ci listixfaar waxul faqul istaxfiru rabbakum innahu kaana xafaara yursil sama aleykum idraara wa yumdidkum bi amwaalin wa baniin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara nee na su saxee di tuub bari lu ngeen di tudd yàlla ci wàllu listixfaar nee dana leen jural sax ma digal asamaan ndoxi barke yim yor ma ne ko wàcce ko ci seen kaw ñu wàcce ko nee na dana danaa wax maanaam maanaam danaa sant ruum yi ruum yi maanaam ñi xam ne ñooy ñooy ñooy am doom danaa leen digal maanaam ñu dotti njabootu barke seen kaw mais alal dinaa ko wax mu ànd ak yéen ba faw ne na loolu lépp mën nañ ko gañe ci istixfaar te it seen bakkaar yëpp it mën naa leen ko suppil ak seen i njumte ci istixfaar kon nag boo ko jullit yi tuub am na njariñ lool ci ab jullit bépp jullit boo xam ne daal nag yaa ngi farlu ci tuub ki foo mën a toll ci jamono na nga xam ne rek sa fa yàlla bëggoon nga teg ko fa teg nga ko waaye koo xam ne yaa ngi sàggane tuub yaa ngi sàggane loo xam ne su fekkee ne ci loo dëpp mën ngaa def ba ci kanam nga rëccu kon bokk julli ji ñun ñëpp nañ laxasaayu tuub dellu ci yàlla surtout waxtu bii ma koy waxee ak yéen fukki fan yi moom lu ci waay tuub rek muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy jégal bakkaar yi nag li muy bari bari suñu borom moom benn rek la ci seetee ne moom la du bale mooy bokkaale ak yàlla maanaam wutal yàlla morom nee na loolu moom ko bale waaye doon nit def moo xam sax ba koy def da ko tey wala tëyu ko moo xam fàtte na ko wala fàttewu ko saa yu rote tuub rek ma jégal bokki nag boobu góor góor bu neex a jubóor la ndax yàlla bu ne bu ma kenn wutal morom wax na dëgg ndax lim mu lim def ci suñ bët te suñ bët man cee tege maanaam lim bind bari na lool ndax na loo xam ne ñun mënuñu koo gis waaye buñ xoolee li nga xam ne suñ bët mën na cee tege rek la nee bu ma kenn wutal morom bu fekkee ne yaa ngi ànd ak sa xel di ko jëfandikoo kon bu ne nag boobu bàkkaar du ma ko bale waaye beneen bàkkaar bu ngeen mën def dinaa ko bare kooku kat ku yomb jubal la kon nañu góorgóorlu bu baax fedd suñu laxasaay surtout weer wii weer wii itam na ngeen xam ne weeru barkee yi nii weeru ngëneel a ngi nii weer woo xam ne loo ci def dañ ko yokk nañu gën a feddliwaat suñu laxasaay ndax dana bari ñoo xam ne buñ duggee weer wi sax bu weeri màggane ba màggatee xeeti yi ñu yëpp dañuy xaw mel ni lu tayel xaw mel ni lu sonn waaye nañu gën a fonkaat li ñu doon def nañu gën a fonkaat guddi yi nañu gën a fonkaat nafile yi wér di yeeg jàng yeeg ñaan yeeg yëpp nañu ko gën a fonkaat ndax boo seetee rek daanaka la jël bëriwul ndax weer moom su xasee teg fukki fan ak juróom-benn ba jëm juróom-ñaar war ngaa xam ne la jël bëriwul yàlla mi nga xam ne nag moonu mayoon nu may ñu jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin na ko yàlla nangul baal nu mboolem suñuy bakkaate bu mu toppati dara mu defal nu ko defal julli yëpp ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ci jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di gàttal lii moo doonoon suñu xutba tey ñu ñaan yàlla mu def ñu dégg ak topp def ko ci yéen wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin yaxfirullahu li wa lakum wa li saa'iril muslimin amin